dal leen ak jàmm mbokku internet yi coronavirus criminel bi ñëpp di daw jamono ji nii moom moo ràmb dugg biir géejawaay ñu ne déetawaay mu ne sarax ca biir mairie ba jël Alioune Sall soxnaam ak sofëru soxnaam sa jël leen en otage démb la ñu testé Alioune Sall mu daal di positif ca covid 19 ba fu mu toll nii mu ngi ci loxoy waa kër docteur ya ña nga ko hospitalisé ci centre de traitement des épidémies bu hôpital dalal jàmm foofee ca géejawaay bi xibaar daanaka moom maire bi ci boppam moo ko njëkk fësal ci compte Twitter jabaram ak sofëru jabaram sa itam coronavirus bi daf leen a téye ñoom itam ña ngi ca loxoy waa kër docteur ginnaaw Moustapha Guirassy ak Kouthia mu siiw mii ñi jot am ci coronavirus ji ba yàlla def mu toll nii ñu ngi sant yàlla kii ci topp nag mooy kii lay di Alioune Sall maire bu Guédiawaye bokk na tey ci limug ñu siiw ñu néew ñi nga xamante ne coronavirus jot na leen dal ci miim réew moom Alioune Sall ci jamono ji doon na yëngatu lu bari ci wàllu liggéeyam ci maire bu Guédiawaye te doon na jëflante lu bari ak ay doomu aadama foofule ca Guédiawaye ngir rek amal la liggéey bu jaar yoon ci wàllu li ñuy wax décentralisation ci wàllu activité décentralisée bu commune bu Géejawaay looloo waral ba ay agent préfecture ak ñay liggéeyee ca mairie ba ñëpp daan nañ leen mettre en quarantaine berne leen ngir mën saytu ba xam ñoom itam ndax amul kenn ci ñoom koo xamante bi lee virus ci coronavirus duggul ci yow mbir mi nag biñ ko saytoo mel na ni safooru soxna sax moom moo njëkk am virus bi di covid 19 gannaaw sa ko jot a jox ki nga xamante moom mooy soxnaat Aliou Sall sa moom soxna sa itam daal koy jox ki nga xamante moom itam am na jàngoroy coronavirus ji cey coronavirus ji daal xam naa ne fu mu toll nii moom ab touriste la fu ko neex lay dugg nu mu ko neexee ànd ku ko neex kenn mënu ci dara waaw kay ñu ngi ñaanal naka Alioune Sall soxnaam si suufar si ak képp koo xamante ne coronavirus bi dal na yàlla na la yàlla saafaraal ba nga wér ak jàmm te yàlla musal ñu ci mbas mi Tactic TV mu ngi leen di ñaax ngeen ngeen sàmmonte ak mesure barrière yi nga xamante ni moom moo ñuy may ñu faggandiku ba mucc ci covid 19 bi lee jërë ngeen jëf